maa ngi lay nuyu di nuyu ministre du travail di nuyu sa yi nga àndal yépp ndax yàlla bu ñu mayee loo xamante nii doon nañ ko sàkk di ko ñaan mu may ñu ko ñu dikkaat fii si penc mu ndaw réew mi di sant population bu tubaay mi ñu porté indiwaat ñu fii ci jàpp ne taxaw na leen assemblée nationale ci juróomi at yi passé ci dignement dañuy sant bu baax si loolu monsieur le ministre des finances Moustapha nekk suñu xarit nekk 166e député ñu ngi ko doon wax ci 13e législative bi député yëpp recontre loolu ñu ngi lay félicité ci nomination bi ñu la def président de la République bi nga xamante ne moom la constitution bi jox ndogal ak sañ-sañ muy fal ku ko neex te du tàggu kenn mu tànn la indi la fi nii ñu ngi la ñaan réussite ci total ci li nga xamam la dénk di nuyu tamit ñi ngi àndal mu si mel ne directeur général de douane impôt et trésor ñi nga xamante ni ñoom tey bu ñu mënee am tey gafa ko gu mën a doxal réew mi seen loxo dugg na si bu baax a baax a baax ndax ñun ñëpp ay député lañ représenté peuple bi kenn ku nekk am foo jege di laaj pour sa gox ñu dugal fa loolu waaye nag dafa am ñoo xamante ni ñoom la yàlla jagleel yoon jagle leen ñoom ñu dem wuti xaalis boobu noonu di ko mën a dajale ba kenn ku nekk ñu koy mën a sedd si gox goxaan yi kon bu ñu taxawee fii il faut que ñu sant leen encourage leen mooy directeur général du douane impôt ak trésor ngir ñu gën a góorgóorlu ci liggéey boobu ñu liggéey ba recette yi jógee si maanaam montant bi mu jógee deux mille vingt et deux mille vingt deux war a yokk ci deux bi il faut ñu féliciter te encourage leen te xam ni lépp lu ñu man pour injecter koom-koom pour man koo yóbbu ci néew du doole yi ci àll bi député yëpp seeni soxla mën a faju loolu jàpp naa ni ñun ñëpp war nañ see mën a am. satisfaction ak ñaan pour que accompagner si ba loolu mën a am monsieur le ministre des finances ku ne xam na ni fi may wax a yow ba démb fonds FMI mi ngi woon ci biir dëkk bi di def ay mission dégg nañ li wax ci loo xamante ni am na satisfaction moom mi ànd ak yéen pour di leen jàppale ci koom-koom bi pour que na ngeen doxal réew waaye bëgg naa bu loolu passé ñu laaj population bi ba xam am nañ satisfaction waaw wala déet parce que monsieur le ministre ay chiffres am na solo trop ay chiffres baax na trop waaye bëgg nañ aussi boo demee ci askan wi ñu di ko sentir monsieur le ministre askan wi nekk ci biti sonn nañ lool baykat yi bay nañ ba noppi seen kilo gerte yi ñu ngi fixé deux cent soixante quinze te mën a jar cinq cent francs monsieur le ministre monsieur le ministre sàmmkat yi amatuñ fu ñu sàmmee parce que diggante baykat yi ak sàmmkat dañu am ay jafe-jafe yu baree bari ndax amuñu fu ñu jàll seen jur bëgg na leen ko leen jàppale nappkat yi jaay nañ géej gi def ay convention yu baree bari ak Europe Union européenne bëgg nañ aussi tamit ñoom ku leen taxaw kon monsieur le ministre li nga xamante ni moom la FMI wax ci li nga xamante ne mooy dette publique PIB 75 virgule 1 pour cent nee na dafa dépassé norme comité euh, communauté euh, euh, intra-africain bi loolu te bëgg nañ si ay leeral parce que ñun si commission bi bi ñuy wax ak montant yi bind ci li nga xam mooy rapport bi boobu FMI génneegul woon li nga xam mooy chiffre bi mu génne loolu bëgg nañ si ay leer yu gën a leer monsieur le ministre dépenses yi mu ëpp recette yi war nañu xool aussi tamit nit bu fekkente ni dafay jox maanaam nit mu ku demal marché te dépense ba nga ko jox la muy jëlee fa mu ëpp war nañu xool décence suñu dépense ndax suñu recette suñu dépense moo ko ëpp war nañu ko bàyyi xel monsieur le ministre dette publique bi dafa bari parce que am na ñoo xamante ni fi may wax yow li nga dugal fii ça fait quatre cent euh, quatre cent yi nii mais loolu est-ce que commission yi si la bokk muy intérêt yi wala dette bi kese la yoo xam ne ko war a fay en tout cas maa ngi leen sant leen gërëm c'est vrai merci